laqin lisaani waxlulan minhu luqad wajalhu zakiran wa shakiran abad wajal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen di leen balu àq te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu ñëw rekk di sofaat ak yéen ni ñu ko baaxoo ànd ak ak yéen ci émission bii di jataayu xam-xam ñu ciy fàttalante ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiallahu anhu te ñu toll ci téereem bi nga xam ne moom la tudde Munawwirus Sudur waaye it ñu tolloon ci suñu bind bi mujj ci bunt bi nga xam ne ci lañu sëriñ bi di leerale ni nga xam ne noonu lañ war a bàyyee xel li nga xam ne mooy ñaari tànk ak fi ñu ci war a dox jëm ak li ñu ci war a moytandiku kon foofu lañu taxawoon ci suñu bindu bu mujj suñu bindu tey day woy ak ñun rek ci dog yooyu nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def jagleel ko cëri doomu aadama bi te tey ñu war a jàngatandoo ak yéen waaye fàttalente ak yéen dog bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiyallahu anhu def jagleel ko li nga xam ne mooy biirub doomu aadama ma euh, jagleel ko li nga xam ne mooy biirub doom aadama kon ci foofu la ñuy sofe suñuy kàddu tey ak yéen sëriñ bi day wax ne faslun fil ni lii ab dog la boo xam ne mi ngi jëm ci biir di ni nga xam ne noonu la ko doomu aadama bi war a sàmme waaye war a sàmm bu baax a baax li nga xam ne moom la ciy dugal sëriñ bi di wax ne laa tudxilil xaraama bul lu araam fil batni ca biir ba wala du caagee ne la nga xam ne maa fiihi nekk na ca subhatun ak lënt balil xilla li fi ne kay na jël lu dagan wilaa nga méng ko ko maanaam bu dugal ci sa biir lenn loo xam ne lu araam la waaye lu lënt sax bu ko dugal ci sa biir waxat rawatina nag loo xam ne dafa araam kon lépp loo xam ne danga dalaa leer ne lii xamoo ci lu ci suñu borom subhanahu wa taala atte muy loo xam ne lu lënt la xamoo ndax dafa dagan xamoo ndax yàlla daf ko araamal xamoo ndax yàlla Euh, daf ko euh, tere xamoo ci dara dafa lënt ci sa bopp ne na loolu sax bul ko jël di ko dugal ci sa biir waxuma laa nag loolu loo xam ne euh, moom araam na ba alquran addu ci hadis addu ci waaye sëriñ bi radiyallahu anhu sax addu ci kon nee na loolu na nga ko moytandikoo dugal ci sa biir bu baax a baax a baax moo tax mu ne laa xilil xaraama bul dugal ci sa biir lu araam fil batni laa tudxil bul dugal alxaraama lu araam fil batni ci biir wala ma du caagee ne loo xam ne fiihi nekk na ca subhatun ak lënt bali li ne wilaa na nga ko méngale moom biir ba alxilla lu dagan maanaam lépp loo xam ne moom ngay dugal ci biir bi na nekk loo xam ne lu dagan la loo xam ne lu suñu borom subhanahu wa taala nungu la muy waxaat ba tey ne fa na nga lekk lu dagan in aratta ndeem namm nga antutiya nga topp allaha yàlla war rasula ak yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam yaa haazal mutiya yow jile aji top nee na na nga fexey ba lépp loo xam ne moom ngay lekk na doon loo xam ne lu dagan la loo xam ne lu suñu borom subhanahu wa taala dagan la su fekke ne bëgg nga top yàlla topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te topp nga jariñ la nee na bu boobaa na nga fexey lépp looy dugal ci sa biir na doon loo xam ne lu dagan la na doon lu dagan kon nit ki lépp loo xam ne moom lay dugal ci biiram war na koo bàyyi xel ndax topp suñu borom bi subhaanahu wa taala yàlla nungu ko wala nga topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ñaari sart ba nga xam ne moom la am mooy faw nit ki day jëfandikoo dagan maanaam bu fekkoon nit ki day jëfandikoo lu araam wala muy jëfandikoo lu lënt bu boobaa tamit la xam ne moom lay topp suñu borom subhanahu wa taala mën na ko bañ a jariñ dara ndax la jëfandikoo dafa araam te nit ki buy jëfandikoo lu araam euh, li nga xam ne moom lay topp suñu borom suban wa taala du ko jariñ dara moo tax nit ki war a bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne moom lay dugal ci biiram doonte ne lu dagan la sax sëriñ bi radiyallahu anhu day wax ne bul jël sa yitte jépp aj ko ci ak lekk doonte ne li ngay sàkk lu dagan la waaye na nga ci jël kem la nga xam ne moom nga soxla rek kem la nga xam ne moom nga soxla ngir jëfandikoo ko ba mën a topp sa borom bi subhanahu wa taala doonte ne li nga yor lépp lu dagan la sax waaye teewut même boo ko yoree mu dagan na nga na nga ca euh, teey bu baax a baax kon bul jël sa yitte yépp aj ko rek ci ak lekk doonte ne Euh, lekk gi saxlu dagan la waaye na nga ci jël rek kem la nga xam ne mooy sa aajo moo tax mu ñuy wax ci nahju xadaa'il xaaj waalam bi anna alxirsa littaami min mujibaati alaari walmalaami na ngeen xam ne xër ci aw ñam day xër ci bëgg lekk bokk na ci li nga xam ne day waral yeddaange bokk na ci li waral ñu yedd nit ki di wax ne waman lekk bi taamil himma wal farji fa huwa al jaamiu al mazimma képp koo xam ne dafa jël yitteem jëpp rek aj ko ci li nga xam ne moo di ak lekk aj ko li nga ci li nga xam ne mooy bànneexu bakkanam ci jaxasoo jigéen ak góor aj ko ci bànneexu bakkanam rek muy ak lekk ak yi nga xam ne moom la ko bànnee bakkanam ak bànneexam di xertal ne képp koo xam ne yaa ngi def loolu day na nga xam ne lépp luy euh, toroxtaange lépp loo xam ne moo di bàkkaar de na xam ne yow dajale nga ko lépp loo xam ne moo di bàkkaar dajaloo na ci sa jëm moo tax mu ne la xas bu ka war na laa doy sëkk ci la nga xam ne mooy ñam woowee minhu maa yuqimu sulba la nga xam ne moom ngay euh, lekk rek ngir man ca dëgërlu taqawiyan li kay tutiyan rabba mu nekk loo xam ne dina la dëgëral maanaam dana la may kattan goo xam ne dinga nga ca mën a jaamoo sa borom bi kon foofu gis nañ ne mën ngaa yor sax ñam woo xam ne wu lew la woo xam ne ni nga ko fàggoo lew na waaye nag euh, na nga fexey ba bul ci ëppal ndax sëriñ bi radiyallahu anhu nee na képp koo xam ne jël nga sa yite yëpp aj ko ci ñaar yooyu mu la tuddal léegi na nga xam ne dajale nga lépp loo xam ne mooy mooy mooy mooy mooy ay bàkkaar dajale nga lépp loo xam ne mooy euh, musiba ndax ñaar yooyu saa boo xamee ne nit ki jël na yitteem jëpp def ko ci Euh, daanaka bakkanam rek lay topp te bakkan moom saa bu ko nit ki toppee fa mu ko jëmee mën naa bañ a doon foo xam ne foo suñu borom subhanahu wa taala gërëm moo tax mu ne waxzar min asarahi kulla dahri fa innahu mabda'u kullu sharri nee moo tax sëriñ bi radiyallahu di wax foofu ba tey ne na ngeen moytandiku li nga xam ne mooy fuqale ndax moom mooy tàmbalikaayu bépp euh, lépp lu bon rek fuqale mooy tàmbalikaay ba maanaam lépp jëpp jëf ju bon joo xam ne nit ki ma ngi koy def ci foqale lay tàmbalee saa bu nit ki euh, foqalee loola moo koy tax man naa jël alali jàmbur man naa lekk araam yooyu yëpp saa bu nit ki foqalee euh, mën naa jël àqi jàmbur te loola du doon lu dagan bu boobaa te it nga xam ne moo cay topp mooy saa boo xamee ne euh, ma ngay jaamu suñu borom subhanahu wa taala la muy jaamoo yàlla mën na koo bañ a Euh, jariñ dara dara kon loolu ñu bàyyi xel bu baax a baax a baax sëriñ bi di waxaat ci xasidaam googu di xoqal bu kaaw di wax ñi nga xam ne mooy moom la euh, suuf yi di dunde muy ponk yi nga xam ne moo téye li nga xam ne moo di tasawuf ba mu koy wax tudd na ca aljuu tawil muy xiif bu yàgg yàgg yàgg te xiif bu yàgg yàgg nag mbokk yi biir rek moom mooy li nga xam ne moo koy def te xiif ki boobu nga xam ne moom la sëriñ bi di wax nit ki dana am lu mu lekk lu ko lew doom dagan ko mu man koo lekk waaye day takk biiram ngir lan ngir mën a jàmmaarloo ak li nga xam ne mooy bakkanam ba li nga xam ne moom la bakkanam bëgg euh, du ko ko jox moo tax sëriñ bi di wax foofu ne arkaanu bayti jamial xawmi arbaatun biha yu assasu bunyaanal wilayaati sumtun wa juun tawilun baadahu saharun wa uzlatun an shuyuxin bil isaaraati foofu kon sëriñ bi radiyallahu anhu tudd na fi ñeenti ponk yu am solo yoo xam ne képp koo xam ne bëgg ngaa sóobu yoonu tasawuf faw nga bàyyi ponk yooyu xel te ponk yooyu bokk na ca li nga xam ne mooy aljuon tawil mooy xiif bu yàgg yàgg yàgg sëriñ bi di waxaat ba tey rek ne wa in wajattahu ndeem fekk nga ko euh, mom euh, lu dagan loolu ndeem am nga ko falaatu dayyaa bul ko ndax lan ne na yu dayyi al xalaala képp ko xam ne sànq nga lu dagan day duyaa def na la sànq ne saa boo xamee ne fexe nga ba góorgóorlu ba sàkku li nga xam ne lu dagan la euh, ne na bul ko sànq te sànq lu dagan nag mbokk yi fàggu lu dagan ba euh, am ko jël ko def ko ci sa biir lay sànq nga mooy nga euh, fexe ba mu reste reesaloo ko ci loo xam ne lu neex suñu borom bi subhanahu wa taala la waaye reesaloo ko ji loo xam ne lu suñu borom bi subhaanahu wa taala gërëm ndax yàlla mi nga xam ne moo la may kattanuk nga mën a fàggu lu lew euh, may la kattanuk euh, wéruk nga man koo lekk mu jàll ci sa biir ba rees kon loolu saa la ko yàlla xéewalee war nga koo delloo njukkal te na koy delloo njukkal mooy lan mooy su la xéewalee lu dagan ba nga am ko ba pare boo ko lekkee bala moo rees nga jaamu ko ci moom suñu boroom bi subhaanahu wa taala loolu mooy li nga xam ne Euh, moom la nit ki war a euh, faye suñu borom bi subhanahu wa taala ci loolu nga xam ne moom la ko defal moo tax mu ne atian na nga topp bihi ca lu dagan loolee nga xam ne yàlla xiwale na la ko ba nga am ko rabbaka sa borom za infaaxin ngay borom euh, ngay borom infaax maanaam ngay borom dépensé ko minhu ci jëmmi suñu borom subhanahu wa taala waaye joxe ko rek ci yoon yàlla muy Euh, loo xam ne euh, def ko ci li nga xam ne mooy moo neex suñu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne za in faaxin ngay boroomu min euh, minhu tukkee ca alal joojee wala ca lu le lu lew loole nga xam ne am nga ko nga dépensé ko ci yoonu suñu borom subhanahu wa taala allazi yàlla ma nga xam ne ihtada moo jubal aji jub ji bilaa faaxin ci lu dut ak naafeq kon nena na na nga fexe ba lo saa boo amee euh, lu dagan saa amee lu lew na nga fexe nga bañ ko sànq um, sànq ga nag mooy lan mooy dépensé ko ci lu neexut suñu borom subhanahu wa taala ñàkk ga sànq mooy lan mooy nga lekk ko reesal ko ci ak jaamu yàlla wala nga jël dépensé ko wala nga jël ko dépensé ko ci yoonu suñu borom bi subhanahu wa taala moo tax mu ne man képp ko nga xam ne ama jublu nga rab rabbahu sa borom maal xaraami ànd di jëfandikoolu lu araam fala yafuusu du tuuf bil maraami ca sàkku teef la addahra jenn jamon nee na képp koo xam ne danga nga euh, euh, jublu sa borom bi subhanahu wa taala te li nga jubloo sa borom bi subhanahu taala du lenn lu dul lu araam rek ngay jëfandikoo nee na na nga xam ne lépp loo xam ne moom ngay sàkku sa digganteeg sa borom na nga xam ne loolee moom jomb na la te it suñu borom bi subhanahu wa taala du la ko jox ngir lan ngir euh, lekk gi nga xam ne moom ngay lekk euh, lu araam waaye ngir lekk gi nga xam ne moom ngay lekk euh, li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala aaye di lu xaraam kon nit ki war naa fexey ba bàyyi xel li nga xam ne mooy li muy dugal ci biiram ngir lan ngir bu toppee suñu borom subhanahu wa taala topp ga man ko jariñ ndax li nga xam ne mooy ñam woo xam ne wu dagan na sax su ko nit ki day jëfandikoo lu bare bare bare bari bu boobaa day dem ba tàyyeloo ko waaye day dem ba mën nañoo wax ne sax wowal ak xolam ba dootu euh, jublu sax ak jaamu yàlla waaye ak tàyyel lay def ci ay cëram ba dootul bàyyi xel li nga xam ne mooy suñu borom subhanahu wa moo tax sëriñ bi di wax ci euh, masalik ba tey ne amma taamu fa huwa yurisul fata xasawatal xalbi isa ma usbita na nga xam ne aw ñam de bokk na ci li nga xam ne day donnloo euh, nit ki wowu xol maanaam day tax nit ki ab xolam wow nit ki nga xam ne dafa jël yitteem jëpp def ko ci ak lekk rek te la muy lekk saxlu lu dagan waaye lekk nga dafa bari lool dana loolee day wowal ab xolam waaye day tax jaamu gi nga xam ne moom la waroon a jaamu suñu borom subhanahu wa taala du ko euh, defe na nga xam ne noonu la ko bëggee kon bu fekkee ne am nga lu dagan jël ca kem sa aajo rek waaye leneen la nga xam ne du sa aajo bàyyi ko fa euh, jox ko joxe ko ci yoonu suñu borom subhanahu wa taala te it la nga xam ne moom nga ci lekk nga euh, jëfe ci ndigalal suñu borom subhanahu wa taala kon loolu moo taxoon yonente bi sa alayhi doon wax bi nga xamee ne buur bi tudd an najashi nekkoon xabasa bi nga xamee ne Euh, yonente bi yónni woon na fa ay ba ñu dëppee jóge foofa di delluwaat bi ñu jotalee risaala bi yonente bi sallallahu alayhi bay dëppaat di demaat ci yonente bi najaasi dafa daf leen a joxoon ay addiya ne leen yutaalee leen ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko ko yutaalee biñ demee addiya yooyu def caa boole woon ab ab ab médecin koo xam ne day faj waaye yonente bi bi mu jëlee addiya yi ba pare dane médecin bi man ngaa dellu ñu ne ko lan moo tax nga ne médecin bi mën naa dellu yonente bi sallallahu alayhi ne ñun kat aw nit lan ñoo xam ne du ñu lekk li feek ñu te suñuy lekk itam du ñu lekk ba suur kon mën nañoo wax ne feebar du ñu dal kon euh, euh, wala boog bu ñu feebar dee dale du gaaw ndax lan ngir ne dañuy euh, lekk bu ñuy lekk lu yem la lekk te bala ñoo lekk dañoo xiif mu nu xaw xawmun la nakulu illa isa najuu wa isa akalna la nashba ñun kat aw nit lan xam ne Euh, du ñu lekk mukk te xiifuñu te saa bu ñuy lekk itam du ñu lekk ba suur du ñu lekk ba suur kon loolu bokk na ci li nga xam ne mën naa jox nit ki ak wér-gi-yaram waaye mën naa tax nit ki am ak oyof bu baax a baax ci li nga xam ne moo di euh, ak ak ay ay cëram waaye ak oyof baax a baax li nga xam ne moo di wér-gi-yaramam moo tax suñu borom subhanahu wa taala di ñu aaye ne bu leen lekk seen alal yi bu leen koy lekk seen seen diggante ci ak neen maanaam bu leen di lekkante seeni alal ci ak neen bu ci kenn lekk alali jàmbur ci loo xam ne euh, du lu dagan ndax lan ndax soo ko defee la mu lay jural mooy topp ga nga xam ne moom ngay topp yàlla deetu la jariñ dara ndax lu araam la nga xam ne moom nga fondement yi topp suñu borom bi subhanahu wa taala moom lay wax ne laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatil Euh, sëriñ bi di waxaat ba tey ci euh, buntu bii rek ne man képp ka xam ne abada jaamo na allaha yàlla bil xaraami ci lu araam fala yakunu muy nekk illa naadiman lu dul aji rëccu mun safila di aji suufe nee na képp koo xam ne day mi ngi jaamu yàlla te la nga xam ne moom lay jaamoo suñu borom subhanahu wa du dara lu dul lu araam lu mu def ci biiram bi suba euh, ci biiram bi nee na bu boobaa na xam ne du doon ku dut koo xam ne aji réccu rek lay doon te it aji suufe rek lay doon ndax jaamu ga nga xam ne moom lay jaamu yàlla du ko jëriñ dara waaye réccu rek la koy mu jël kon jaamo yàlla ci euh, loo xam ne lu araam la dafa doon loo xam ne euh, nit ki war na ko moytandiko bu baax a baax a baax te jaamu yàlla ci lu araam mooy lan mooy jël alal ju araam def ko ci sa biir kon ak jaamu yàlla wala def ak topp yàlla bu mu man di doon balaa mën a jariñ ki faww la nga xam ne moom la koy fondement yi muy euh, la muy jëfandikoo day doon euh, lu lew moo tax sëriñ bi di waxaat ba tey ne wa talabul xalaali fardun yantami li kulli muslimin bi gayri wahan kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax waxaat ne wa xaysumal xalaalu nilta faqtasir ala alkifayati wa billahi intasir wa xaysuma nilta saa boo fi amee alxalaala lu dagan faqtasir na nga euh, na nga na nga na nga na nga ci gàttañlu alal kifaayati ca la nga xam ne rek moo la ci doy wan tasir te nga dimmandikoo billahi ca suñu borom bi subhanahu wa taala ne na it saa boo xamee ne am nga euh, lu dagan loo xam ne mën nga koo jëfandikoo ne na na nga ci jël kem la nga xam ne moom nga soxla rek li nga xam ne moo la ca doy rek nanga ko jël te la ca des nga dimmandikoo ko sa diggante ak sa borom kon loolu li muy tegtale mooy day tegtale ne nit ki fàggulu lew am na solo lool ci ak dundam waaye am na solo lool ci digganteem ak jaamu gi nga xam ne moom lay jaamu suñu borom subhanahu wa taala ndax li nga xam ne mooy tax jaamu googee mën koo nungu mën nañoo wax ne euh, fondement ba mooy ma nga tàmbalee ci fàggulu lew def ko ci sa biir ngir mën a taxaw ngir mën a jaamu suñu borom subhanahu wa taala waaye nag euh, boo fàggoolu lew loolee ba pare nga bañ koo fàggu rek jël lépp euh, noonu rek xam ne lu la lew la nga jël ko euh, defandoo ko noonu ci sa biir mu doon loo xam ne daal lay diisal ba indil la ak tayyeel ci jaamu gi nga xam ne moom nga waroon a jaamu suñu borom bi subhanahu wa taala wala nga fàggu lu lew ba mu bari lool ci sa ci sa ci sa ci sa ci say bët euh, su ko defee loola mën na laa jural ak rëy wala jural la yeneen jikko yoo xam ne bu boobaa euh, du la nga xam ne moom la moo gën du loo xam ne moom la ab jullit war a euh, jikkowoo te it li nga xam ne mooy bëgg àdduna sëriñ bi wax na ci masalik euh, ne summal mahabbatu liti dunya laha arbaatul arkaani raai kullaha ne na na nga xam ne day bokk na ci mandarga yi nga xam ne mooy mandargaay bëgg àdduna day ñeenti ñeenti ponk yi nga xam ne moom la lay bëgg a waxal mu ne la awaluha almaalu ba ca jiitu mooy alal wa saaniha temps ñaareel ba mooy fukkule ci ak lekk bëgg aw ñam lool wa baadahul kalaamu ginnaaw ba mooy wax wax joo xam ne amul benn njariñ baadahul manaan ba ca tege moo di ay nelaw kon ñeent yooyu ne na képp koo xam ne da nga koo jikkowoo te defoo ko te e, yàlla rek tax maanaam fàgguwoo alal ji ngir dépenser ko ci yoonu yàlla rek tax wala jëloo al e, ñam wi Euh, di ko lekk lu dul nang nga koy puukaréwo wala da ci lekk ngir di ci euh, ñaawal ñi nga xam ne ñoom la ko suñ borom xañ wala nga nekk koo xam ne foo toog di wax wax ja du am benn njariñ amul lenn loo xam ne moom lañ ca mën a jariñoo wala nga doon koo xam ne ay nelaw rek mooy li nga xam ne moo la yitteel ne na ñeent yi képp koo xam ne moom nga jikkowoo wala jikkowoo nga ci benn na nga xam ne yow ak ba bëgg àdduna gu wér a wér mi ngi ci yow kon ba nga xam ne moo ñu ci gën a yitte rek mooy bëgg aw ñam gi nga xam ne moom la ci wax te bëgg aw ñam gi la nga xam ne moo koy waral mooy euh, boo ko wutee ba pare def ko ci sa biir euh, def ko ba pare waaye doo ci topp li nga xam ne moo de suñu borom subhanahu wa taala donte ne fàggoo nga ko fu leew sax waaye mën nga koo bañ a def fi nga xam ne moo euh, mën nga koo fàggu ba pare def ko ci sa biir te doo ci topp suñu borom subhanahu wa taala ba mu rees kon daal foofu ci tënk mooy biir euh, kaso la boo xam ne lépp loo xam ne moom la ci nit di dugal war naa doon loo xam ne lu ko wér na lii lu dagan la te bu ko ci dugalee ba pare mu fexey bañ caa ëppal jël ca kem soxlaam waaye bu ko ci dugalee ba pare mu fexey topp ca suñu borom bi subhanahu wa la jëfe ci ndigal yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala digle waaye leneen loo xam ne moo ca des mu jël ko dépensé ko ci yoonu suñu borom bi subhanahu wa la kon ci tënk loolu la ñu andi woon tey di tuub bu baax tey jégglu di wax ne in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ala sahabati wa saadati kullihim ridwanu rabbil aradi wassamawati ala sahabati wa saadati kullihim ridwaanu rabbil araadi was samaawaati